mom il fait partie des mariés mom mo pointé won en attaque mom nee na moy na mooy Sadio Mané doomu Mbacké nee na moom Sadio Mané pointé en attaque premier mi-temps bi joué nañ ko deuxième mi-temps dafa cédé place am ñoom ñoo mëne un but à zéro premier mi-temps marié de Mbacké ñoo mëné gum un but à zéro mais célibataire ñu ngi forcé ñu ngi pressé di def le tout pour égaliser match bi nag sa way génn na fale ñu accrocher ko waxtaan ak moom tuuti hein waxtaan ak mom ci carrière am parce que saison passée maa ngi koy wax sank ci reportage bi dafa bëre deux combats bëri daan Cheikh ñaan jóge ci daan bubu tiaski saison 2022 2023 dañu bëgg doom Mbacké ñëw Dakar parce que ñëwoon na fa prouver bëri na fa 3 combats 3 victoires mais gëj na fa bëre saison bi bëgg nañ mu ñëwaat fa prouver waat woné waat boppam ci ci euh, cadre bi mu bokk manam ñi mu bokkal génération ses potentiels adversaires à Dakar bëgg nañ mu ñëw fa woné waat boppam sama gaay yi doomu Mbacké moy sama invité tay ci seen émission mbeur ma lay. ziar wa Seydina ñu ngi lay ziar bu baax di la bëggee di la kontaane. nuyu waa Mbacke Bawol gépp di ziar ñëpp jiital ci nuyoo bi xalifa général kuli murit sëñ Muntaxa Basiru Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di nuyu xalifa Baye Fall yi sëñ Amdi Xadi Penda di nuyu sama sëriñ sëñ Galas Mbacke borom Daar Rahman di nuyu ñëpp di nuyu sama doomu nday ñoom Tafa Ndiaye ñoom Modou Gueye ñoom Leyti Diop xam nga di nuyu tamit ñoom Père Mun Ndiaye borom Gambi ah nuyu Mamor Fall xam nga ziar sama gars yi fan si club doomu Mbacke bi yëpp ma leen di bëggee ñoom it di leen ziar bu baax di leen saaw daal. loolooy nuyoo bi loolooy nuyoo bi yee. rakk ji doomu Mbacke ci lu mu ne. waaw li mu nekk mooy mi ngi ci ruqam rek nekk ci entraînement am comme d'habitude comme ni mu ko daan defee rek xam ne waa Mbacke moom dañ ko yónni yaakamti ko te ndaw la boo xam ni day représenté Mbacke dignement kon caaxaan waru ko foo waru ko te tëdd di nelaw waru ko moo war a saa boo ñu fekkee rek ñu ci rythme bi ñu war a nekk. nekk ci entraînement yi nekk ci comme d'habitude comme d'habitude rek. way man man bëri laa la xamee bëri moom wax dëgg yàlla na ko mën moom bëri moom dama nangu ne doomu Mbàkke dafa mën a bëri yuuxu naa ko fu ne mais mais tey dama ñëw ngeen ne da ngeen di football les mariés de Mbàkke face aux célibataires de Mbàkke oh oh. waaw mais noonu la demee lii match retrouvaille la booy xool tey terrain bi ñu nekkoon nekkoon yëpp 22 jours yëpp jaar nañ ci nawetaan jaar nañ ci championnat jaar nañ ci lépp mel na man seulement ci jaarut ci nawetaan footballu ma nawetaan footballu ma cadet footballu ma senior mais boo xoolee koñ bi ñu dëkk. koñu sport la ndax fii làmb moo fi dox ak football te tamit dañuy dugg ci terrain bi tous les vendredis di jouer ak suñ grand yi boole ko dañuy jouer ay match gañ sa money xam nga loo waral dañoo dem ba dañuy nekk joueur comme ñoom moo waral ñu mën a dugg seen biir sax jouer match bi ñu jouer boo xoolee benn rasul ja tey moo dugal suñu bii bi ancien joueur port ancien joueur port ancien joueur koor ancien joueur Kaolack xam nga jouer championnat Sénégal première division jouer championnat Maroc dem fu nekk xëy na tey yàlla moo doog a réussir si football mais def na ci lu nga gis ay grand Saala Ndiaye ñoom Abdou Fall ah ñoom Alsaan grand yi ñoo xam ni ay ndaanaan lañ ak suñu booy yi nga xam ne ñoom it ñoo nekk ci bu koñ bi muy yoonu ndam booy yoo xam ne yu am talent waaw mu nekk match bu rëy daal. match bi nekk ambiance gis nga organisation bi sono bi tegee saisi ñëw xam nga mel gàtte gaay sax am na fi. waa ngeen booy. waaw mais tamit. waa expérience expérience faire la différence. l' expérience fait la différence. non noonu la demee parce que di jaay fraîcheur yéen ngeen joué ak expérience. waaw am ko benn rek daal koy dugal taxawaat di leen déglu. ay parages ay parages ci suuf xam nga ñun ci làmb lañ nekk noonu xoolal nañu waxante dëgg rek maa yow on se ah, sa cimukaay kan wala ki ko yor est ce que nekkul fi. waaw moo néew leen booy te digganteeg yàlla. yàlla xam na ne bu ñu leen dara dañuy ñëw rek foo ñoom noonu xam nga yaa ma a xam. kon instant bi 1 à 0 bi ci terrain bi la tactique la technique. j'ai parce que ay daalaan lañ yor ñoo xam ne toj nañ Sénégal fu nekk waaw noonu la demee. mais i yi jouent bien de. non ay joueurs lañ déggoo li ma la wax. ñoom ballon pied buñ téye bal da ngay xam ne ñu ne. kon ñoo nekkoon équipe bu koñ bi. yor ko muy juboo football fi. waaw waaw doo mbàkkee kon daal kon daal comme comme ni nga ko expliqué match bi match de gala la. waaw match de gala la retrouvaille la xam nga foog après loolu la affaire de koñ la ko wax. noonu la demee gars yi ñu ngi ci nak deuxième mi-temps bi ñu ngi ci yéen mëne gum un but à 0 mais buñ joggé ci match bi dañu jël ci wat ci doomu Mbacké mi ñi xam ci lamb ji doomu Mbacké doomu Mbacké le technicien le tacticien doomu Mbacké très doué très fort techniquement physiquement machallah mais boy wa tam gëj nañ la gis wa Dakar wa Dakar am nañu foog da nga tukki non tukki wuñ sax ñu ci ñu ruq rek xam nga tamit suñu làmb moo neex rek moo waral benn instant buñ toogee tamit dugguñ temps nit du feeñ parce que image yi moom day dem fu nekk mais nag lépp mi ngi temps quoi te incha allahu rabbi saison ren ci kàttanu yàlla dinañu gisaat retrouvaille bi day ñëwaat dañoo bëgg a ñëwaat ndakaaru jëlaat suñu place jël liñ moom téew ko en saison 2022 2023. saison 2022 2023 nañu xaar incha allah rendez-vous. ñu officiellement combat yi mi ngi war a commencer le 2 octobre doomu Mbacké dafay signer le retour à Dakar. damay signé le retour à Dakar te su ma ñëwee ñoo xam ni man ak ñoom bokkuñ su ma bëree mu neex mais Seydina mais man mais su ma ñëwee ñu xam ne man ak ñoom bokkuñ su ma bëree su ma bëree mu neex su ma feccee mu neex te su jógee mbooloo may topp ndax gox laa dëkk. mais bul ma ne yàgg ñoom bokkuñu qu'est-ce que ça veut bokkuñ li la koy wan rek mooy ci lii fii ñun ñëpp benn lañ koo ci dem gaalem da ngay añ reer bu tëdd jotee nga tëdd nelaw. moo tax saa bu ma jógee mbooloo moo may topp dëkk moo may topp te boole ko fomm yi ñuy def maa leen ko dàq. <laughs> fomm yi ñuy def yow yaa leen ko dàq. maa leen ko dàq. maanaam du genre yaa leen dàq bëre. maa leen dàq bëre maa leen dàq fecc. booy town town non town town ay buy grave fa nekk boo yoo xam ne bu géwél gi ne ca ca ca aw booy town town am na boo mën a fecc jàmm gën may ma tuuti bul ma dagg bul ma dog de ma dagg jàmm gën Caaroy Géejawaay Pikine Parcelles oh non non am na boo yoo xam ne bu ñu feccee nga kontaan. waaw mais boo yooyu noonu chaque jour samay image la ñuy gis di nangu di joxe loxo xëy na nag yow am nga loo xam sax mais nag may laaj rek. xam naa xam naa maa ngi suivre de près. way yo marié dugal nañu deuxième bi des mariés. deuxième bi des mariés. deux bi la zéro. rey nañ leen kon. non non bi jeex na bi jeex na marié yi door nañu célibataire yi <laughs> deux bi la zéro. waaw yow yow Maria yi ngay supporté de ah Maria yi ngay supporté oh 2 à 0. 2 à 0 mais mooy li ma la wax célibataire yi nag célibataire yi nag qu'est-ce qu'il a. waaw dañ koo mënatul rek ñoo gën a nekk mag ñoom marié yi. mais l'expérience fait la différence quand même. ah mooy loolu. mooy mooy kontaan nga nag instant bi yaa ngi ree rek. waaw noonu la demee noonu la demee mais comme li ma la wax rek. waaw yàlla xam na ni gars yi bokkuma ak ñoom barki Serigne Bamba. dañu jël si waat ci sa palmarès. Dakar sa premier combat Dakar kan nga bëri. Golbin Fara. Ngolbin Fara bu écurie Bawol Mbooloo nu mu ma daan ko journée Assane Ndiaye waaw. deuxième combat arène à Dakar nga nga bëre kan. journée prési production. man ak euh, Boy Reef. nga bëre Boy Reef bu écurie Bawol Mbooloo daan ma daan ko waaw. troisième combat nga si la changé Gris bi. ñaari Gris ñoo daje nga ne Gris bi. dama koy effacé nga def ko doomu Mbacke. moo indi doomu Mbacke bi ñëw. stade Iba Mar Diop. ma ñëw daan Gris Junior boobu. nga daan Gris Junior. waaw ah. Gris Junior bu école Cheikh Mbaba. Cheikh Mbaba waaw. après bi nga ci jógee nga absenté Dakar 3 ans. ma absenté Dakar 3 ans ñëw Diourbel. 3 ñëw Diourbel nekk Diourbel nekk Gàmbi nekk daar Jolof parce que si diggante bi. bëri naa fi ak Lajoor bu kees daan ko. bu kees bëri nga ak moom. waaw si diggante si diggante bi bëri naa fi ak Zos bu Kadam. dans Diourbel si diggante bi bëri naa seeg Saliou professeur Mané moom moo ma daan. professeur Mané moo la daan. waaw ok si diggante bi bëri naa ci Hercule nii la moom. Hercule Hercule 2 bu benn brak mboolo waaw ci diggante bi bëri naa seeg Siteu bu Diourbel daan ko. Siteu bu Diourbel bu Hercule Rebeuss. daan ko waaw ñëw jëlaat encore Cheikh Niang daan ko. Cheikh Niang bu Mbour Bombardier. waaw ñëw jëlaat boobu caski daan ko. nga bëree ak boobu caski boo seetee dèjà bi nga bi nga gëjee bëri tawoon ak léegi boo parce que bi nga jógee town ak léegi bëri nga six komba benn défaite nga ci am benn nul cinq victoire. noonu la demee waaw. noonu la fa demee ren booy booy euh, xam nga man sama gars nga man on est ensemble n'est-ce xam nga loolu léegi du ma la bàyyi ngay def yenn erreur de communication yi booy taw ne dañoo garaaw dañoo bandi boo fi toogee ne foo mi maa leen ko dàq mën nañ la mere te damay bañ bu ñu la meree boo fa amee combat booy ne ah booy bi la si naa seeti woon mbàkke muy bandi bandi di dellu genre yooyu ñu xam rek ñu ñëw tegal la lu métti genre yooyu laay ragal léegi da ngay da ngay xool da ngay xoolaat bu baax ni ngay communiquer. maanaam buñ ma meree loolu sama contentement lay doon ak sama mbégte. nga meree bu arbitre sifflé dañuy raag ak parce que boo ma jaayee taalibe rek moom nga ma ndax damaa gëm sëñ bi te damaa yaru ci murit gi dëkk Touba ak Mbacké mais boo ma jaayee pànk rek ma wan leen la pangalang laa. ku la jaay pànk. ma wan ko ne man pangalang laa ñoom ñu mer loolu noonu day doon seen gaañ te day métti ci ñoom. waaw ma la ay booy. yoo xam ne promoteur bu la woo proposé la kenn si ñoom ne la ne leen noono ne leen non Seydina nee na bu ma jaar foofu ay boo yu garaaw laa lay limal nii boo leen koo ci seen gauche jëlal droite est-ce que yaa may dégg bulldozer gin bu yoof caatu yaraax wës jàmbaar mbër ñaa bu ndaw armée bu ngéwal am na ñu des de am na ñu des boo yu garaaw am na ñu des maanaam ñi ngay wax ñëpp fourrière may ma tuuti fourrière fourrière bébé Diène abu ñaase abu ñaase wax ñoo ma gën a neex ay abu ñaase ay wës jàmbaar ay tafa mbër tafa mbër moom li tax ma gën a bëgg ñun ñaar saan ñu am ko dama bëgg moom ñu tegal ko fukki sabar ak ñaar mu taxaw na le ma taxaw wala dàq fecc barke Mouhamed su ma Abdourahmane Ndiaye jóg du jóg moo la dàq fecc tafa mbër moo la dàq fecc yoo xam bu la njëkkee fecc booy fecc kenn du la seetaan ñoo xam boo ko njëkkee fecc bu feccee ñu fàtte la dama ne la boo boole woon mën a fecc Tapha ak bu liis Ndiago tudd nga Ndiago bi ah tudd nga Ndiago bi wax la boo boole woon bu liis Ndiago ak bu Tapha boole ko wutaat yeneen ñaar yoo xam ne jàpp nga ne tawoon boo yi dàq fecc si lañ su mu ñëwee bu ma defee duñ def feccee duñ duñ fecc Mbacke waaw mais sax man sax loolu damay neex géew man ak ñoo ñoo ñeex ñëpp dama leen di néewal dool dama leen di firnaal dafa dafa bon dafa soxor dafa mbër day jàpp gars yi dóor ñu daanu kaawoon ak quatre personnes yàlla xam na ni dama leen di firnaal dama leen di néewal doole dama leen di daan jël boo xam ne da nga naan loxo dem na gémmiñ xoolal c'est bien nag gëm nga sa bopp d'accord prouvé nga sax nag d'accord nag wax dëgg yàlla da ngaa prouvé bu ñu waxante sa carrière yëpp ñaara defet nga am benn wala ñaar Seydina man sama carrière 25 cinq combats laa def 4 défaites laa am 2 matchs nuls 18 victoires arène arène waaw ah, da ngay sóob waay booy bàyyi seen ngay def waay booy moom 25 combat mooy lan doo seen ngay def xam nga si émission lañ nekk kon yaa victoire ci nekk ah. cheikhul xadim rek laa gëm moom laa wóolu mais barke cheikhul xadim alxuraan laa lay waatal 25 combat laa def sa carrière sama carrière 25 combat yoo xam ne yëpp bëre dóor la Jurbel Mbàkke Tiwaawan Gambi Daara Jolof dama wërum réew ak Dakar li ma bëre ñoom bëriwuñ ko Sénégal ak li ko wër. kat Sénégal ak li ko wër Kaolack ngay wax bëriwu ma fa ak Thiès mais feneen foo wax man la bëree naa fa fi ma jaar jaaruñ fi li mu dund dunduñ fa man sëy naa benn saison laa jël mbapat 17 drapo bëri dóor suñ zone amul lamb simple dóor moo fi am kon da lay wóor ni maa gën a pànk parce que dama doon bëri benn journée 11 combats 11 combats yoo xam ne yëpp bëri dóor la waxuma la léewtoo jàpp ngeem de. yëpp kuy day tàkk ñoom koo ko ci wax xam lu mu lay wax da ngeen di xaru moo tax mënuñ yem te bu ma ñëwee incha allahu rabbi waxuma fii laay commencé mais fu ma mën di commencé da nga ni gan ñëw na. gan ñëwati na ñëwati na delsi na ñëwati na. non non man xam naa booy peut être dese xam ne man setu ko ni non booy kay damay rube nii rek. mafia bi nga gis nii ñëpp su ma jógee ñëpp jóg instant li may wax nii bu ma jógoon siis bi sax keneen ñëw toog boo ko laajee mu wax la mais mais mais doo Mbacké doo dina metti nak déplacement bi fi ba arène nationale déplacement bi dina metti de pour supporter. metti wut si ñun parce que dañu am ay nit ñu yalla baaxal ño xamni yor nañu weccet ba paré man ko def si ñun ku ci mel président Ibrahima Ndiaye. président Ibrahima Ndiaye. borom mouvement Mbacké moma ma ñoom. borom mouvement Mbacké moma ma ñoom. non astafurlah borom borom euh, mouvement Mbacké en marche. Mbacké en marche. Ibrahima Ndiaye. Uh-huh. yor yor ko xamne DG Galoba nga xam mo nek Suzip SA. Galoba nga xam ni bu rafet bi nek dem ñaajo ma sha allah moko liggey mo yor lepp lu fa nek santé nek actuellement maire Mbacké. monsieur le maire de Mbacké. waaw suma ma ko ma dana ma ñaata blogu be nga soxla mané ko temps mu yëgëti xaalis jox ma ne ma dama entraîner entraîné te tëdd na la xam nga am autorité bo xamanteni sama dernier combat Sidi Diakhaté li tax mu topat ma bëgg ma teug dañ dem ba combat bi des une semaine ma sol sama yére olof ba cëppoo bolog dem këram ànd sama ñaari copain ni ko DG nelawaguma parce que ticket yi li nga ma waxoon nga may jox arrangé wu ma parce que mbooloo bi may yóbbu mu ne ah ma ne ko trois bolog arrangé wu ma mu ne ma ñaar nga soxla ma ne ko cinq bolog mu ne ma demal maa la koy envoyé léegi avant may dugg sama kër wéef bi sonné ma transféré ko di Diakhaté moo waral bërki démb la ma woo di ma proposé ay adversaire ay tourni junior ay ñeneen ñeneen man ko soxlawu ma ñoom kon ma xam naa li ma doon ku ci mel ni grand Tafa Kama borom mouvement Mbacke moo ma ñor di ma jàppale. ku ci mel mel ni Mamor boroom Touba Mamor Fall sama xarit sama doom ndey ku ci mel ni per Mun Ndiaye borom Gambi su ma ni su may bëree su ma amee combat Gambi li fay jóge day 15 personnes loolu nag ci nit la. yow yaay liggéey li nga xam ne moo tax nit ñi topp la tey sama gaale ñëw nga fa gan ma am yëpp ay Gambien lañ presque te dama fa dugg bay fa sama waar def fa loo xamante ni kenn du ko dindi ba nii boo demee da naan la meilleur combat bi fi gën a neex ci Gambie Gris bu Mbacké moo ko bari ak Sakadior bu écrit lam Sakadior no non Sakadior bu écrit Kër Massar bu Kër Massar Assane Sakadior ren bëri na grand combat euh, euh, Iba Mar Diop moom ak jaay doole na man maa ko daan Gambie dañoo ba dañ naan la lamb combat bi dàq ci Gambie histoire lamb Gambie Gris bu Mbacké la ak Sakadior kon loolu kenn dootu ko effacé waaw ah, ñu ngi ci histoire. ñu ngi ci histoire. mais daal ren daal da fas yéene dugg town. damay dugg town te dama. nga booy town. damay dugg town su may ñëw damay sol saaru faaru mbaam def tengaade def toq caaya. waaw waaw tengaade ba. wane ni bawal bawal moo ñëw. tengaade ba je m'en souviens très bien. suñ dof bi. suñ dof dof loo buñ ma autorisé ma indaale benn góob di ko dugal ci biir géew bi. Hmm. den waaye ne baykat moo ñëw bawal bawal bi moo ñëw. Hmm. mais lu waay liggéey yaa moom ñaq jariñu lañ wax waaw te nee nañ la wutub xaalis bay moo ci gën a yomb waaw kon jeex na. waaw waaw booy town ni kan nga ci ñeme kan nga ñeme ci booy town tere naa la nag mais mais kan nga ci ñeme ko xam. ñeme nga may laaj Seydou. yow kan nga ci ñeme loolay kan nga ci ñeme. ñoom kan moo ma ci ñeme. yow fi mu ne boo ma doon jox ñoom kan nga ma ciy jox kan moo ma ci ñeme. man dama laa ñëwantal man bëgguma xool fii jox la benn booy boo xam ne booy bu soxor. xam nga xam nga dèjà Mbacké ñëw naa fi booy dem Touba Mbacké ngay jaar genre yooyu noonu damay ragal un jour ma jox la fi benn booy bu métti waa Mbacké mere ma loolu laay ragal moo tax du la tuddal kenn mais yow koo ñeme yow tudd ko. Seydina Seydina. promoteur yi ñu ngi lay parce que wax dëgg yàlla kuy jaay cinq blocs. dafa am bu ñëwee day neex ndax laam mi ngéewal la déglu ma rek wóos jàmbaar su ñëwee day neex. wóos jàmbaar dafa dof kooku karaté ka la. abu ñaase dañu woon gàmbi booy sama mafia bi. Gris bu mbaake na ñëw ñu bëre na ñëw taawun ñu bëre. xam nga xam nga abu. waaw ah, man moom moom Gàmbi la taxaw di ndellu ni booy Gris bu Mbacke bëggee ñu bëre na ñëw. Gàmbi la taxaw di ndellu. waaw. benn booy xam nga ni li nga wax ni dina ko seetaan. benn booyee ko seeti mu naa ay Gris bu mbaake bu bëggee na ñëw ñu bëre Gàmbi na ñëw taawun ñu bëre. ngeen mbëkkante Dakar. waaw mu mu oh abu abu abu jóg rek rek rek baa bee ko jóge jàmm gën rek rek jublu jublu arène nationale ba. abou muy ñëw ngay seen tay ba ca kaw mu njool. fess del fees dell def ñap at bi mayor la ma yor bënn ko bam père ba jeex. té li ma lay xam nga ko sax. xawmako dé xawmako dé nono ma bul ma jaxassé dé bul ma jaxassé ko jamm nga na ma xam ko luma ci xam xawma ci dara dé yalla xam ne ni pusa ngaax la yor dama koy bënn féral ko bam jeex. ma dok koy daan duma ko daan sax ci ay 2 minutes 3 minutes dama koy cons. waaw abou bu lansaar abou abu bu abou ñaa sa tarkinda dom day cité mom lañuy wax ni n'est-ce pas bul tudd Siteu Siteu dafa bay waaram. li dama ne doomu ndey Siteu doon un grand champion. boo si un grand champion. boole ko Siteu ma koy suivre di kontaan ci moom chaque jour Baye gi mais Baye Fall gi bu rombee tamit ni muy wëlbati koo di dundal goxam. barki Démo Ndiaye ma gis ko mu jël ay lu mat cinquante càq-càq ou cent jënd ko jox ko population jàmm gën pour ñu liggéey. les jeunes de jàmm. boole ko saa buy def message. wax guvernement bi neen xale yi dañoo sonn kon kooku référence la. kooku man mbër laa comme moom mais damay déglu ay message am dafa am solo te dama ciy jàngee des fois day wax loo xamante ni man dama koy jëfi day wax si te des fois day communiquer wax loo xam ne man après damay damay xam ne lii dama ko war a jëfi dama koy jëfi waaw ñu ngi koy béggee mais nag doomu nday abu ñaasee doomu ndayam bis bu ñu waree bëre si te bu ñëwee buy dem da koy lëngu yóbbu abu instant bi dafa mer parce que Pape Ndoye tooñ xam nooy da ko tooñ dal ko jël bu rëy stade Iba Mar Diop instant bi ni xoolal mi ngi kuul kuulam rek noppi te man xam naa ko abu abu rancunier la abu warul mer bu meree xoolal bés bu amaatee combat booy buñ ko fi jox dina la xoolal oh bés bu mu tànc instant bi ci tunnel yi ku mu jàpp instant bi ci ci làmb ji dootoo ko defati booy waa waafal waafal abu ñaase bàyyi ko fi jëri keneen xam lu ma wax jaalu mus ji nax da ko dem si yàlla si Moussa Diouf moo ko daan wax loolu rek laa lay wax waa jaalu mus ji ndax du ko yëndu loolu rek laa eh, eh, eh, may may ma tudd léegi daal promoteur yi doomu Mbacke Abou Niasse na taxaw. wala Tafa Mbër bu bëggee wala Weuz Diambar ku ci ñëw ñooñu baax na ñoom ñett. moom na lijjantee gum gàmmu gay ba pare. waaw fa jël ñoom ñaar ko la lamb léegi amul maas dabante la c'est normal. comme moo jël euh, Zarko. waaw mu loolu lay wan ne bi ku nekk mën ngaa bëri ku ne. waaw mooy loolu. yow da bëri adversaire à Dakar. mais man ñi ma daan ñoo gën a ës ñi ngi may wax man ñi ma daan ñoo gën a nekk ndaanaan ñi nga may wax. Cheikh Niang tey boo xool Sénégal ku fi def plus de cent nangam combat mel na moom rek ngay moo ëpp combat ci làmb ji. ñoom bu mu ba léegi xam nga ñoom per faalaay ak ay ñoo ñooñu ngay wax mais actuellement sax man gëm naa ne moo ëpp combat lim dóor mu daanu ëpp na quinze combat yàlla ko defal. Euh, George Bush la mujjee dóor mu daan George Bush bu bu bu bu yi ba dajoon ba pare gars yi ni na jeex na jeexal na mu ñëw jël combat mbuur daan jëlaat koomba euh, côté Réfon daan ñëw jëlaat George bus dóor ko mu daanu ñëw jëlaat beneen combat dóor mu daan muuru ne confirmé na quatre combat nga tegale ko daan mu jóge ci dal ci buubu caski Jurbel kenn ñi mu wutoon buubu caski buubu punkal njool sa kaw moo daan Jordan deux fois Jordan mooy mooy mooy mooy tanoor bu Jurbel moko daan deux fois Cheikh Niang mo daan buubu jaski deux fois man ma daan Cheikh Niang ñoo daan buubu jaski boole ko daan samay morom daan samay rak ya daan sit léegi wax ji moy kadam ya daan euh, Jurbel encore jamalay ya ni lak irki lan moo fa des amul luma fay prouver wax ji moy preuve mo fi amatul amato loy prouver instant bi fi ci euh, mbacke Jurbel ci na absolument plus rien à prouver léegi combat yi combat yi kombai à Dakar. combat yi e Dakar la may wax population mbacke bi yépp ñu wacc xamni seen doom bu joggé nañ ko doon défé di déplacer wu di dem Dakar di bëré di wat guddi guddi mbacke non lañ koy défé lamb ji wërngal këpp ban bur moy say. lamb ji wërngal këpp wa man nak dama dama dama dama dama gëm sama bop génération bi ñëw ni man na la wax ni la balagay lay supporter lay supporter non du sama idole mom lay supporter mais man idole laa la. sama idole benn la muy Moustapha Guèye. Moustapha Guèye ancien tigre de Fass. ancien tigre de Fass ci bëre ci bëre kooku rek moo ma yéemoon ci bëre kooku rek moom ay jàngal bëre ci bëre ba léegi moom laay xool. lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq bëri. man. à part ban mbër moo dàq bëri ci lamb. à kaw ba suuf kaw ba suuf. soppay galas bu Mbàkke. soppay galas bu Mbàkke moo dàq bëri ci lamb ji lamb ji wërngal këpp laa la wax ku ci dàq bëri nga ne. soppay galas bu Mbàkke. waaw question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq xeex làmb ji wërngal këpp gars yi moom des fois dañuy tireur ba daal moo xam naa bàyyi na quoi Malick Niang actuellement ñu fi ne gars yi dañuy kii rek non mais gars yi mooy loolu mais le di bawal kenn du moom de Tafatin waaw kan moo dàq xeex ci làmb ji Tafatin Tafatin moo dàq xeex ci làmb ji waaw question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën man pour moi. à ban mbër nga jàpp ne moo gën a ñeme entraînement ci làmb. question moom maanaam kan nga gën a naw koo xam ne naw nga ci entraînement. Sa Thiès. Sa Thiès. Mhm. Sa Thiès Salif ko lool ci entraînement. waaw nga koy jox. waaw question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi fit ban mbër nga gën a naw ci fit. Lac laa xam ne mosut a rekk leen mbër. waaw parce que lu ne ci kanamam da jëli. xeyna tolof tolof la mo doy war mais japp naa senegal mbeur bu fi tak ngem kenn ëpp ko fi. question suivante bi lamb ji wërngal kep ban mbeur mo fi daax fecc. pour man. yow ya daax fecc lamb ji a part yow ban mbeur nga japp ne mo daax Apa fecc lamb a part man nak euh, ñaari mbeur lay wax ni ñaar non dafa ndaañ non ñaari mbeur la gis yo xamni sa saa bu ñuy tuus damay bég euh, booy ñaar feccu ngéwal lay fecc day fecc muy neex ta du sonna mais Ama Baldé feccu mbër lay lay fecc parce que li muy fecc day joxe boole ko fecc bi day am rythme fecc bi day am rythme te boole ko fecc bi day làmbe. ñoom ñaar kan ngay jox ne moo dàq fecc la. non man nag man nag tuusu Ama moom moo ma gën a neex ci tuus waaw. Ama Baldé nga ko jox moo dàq fecc làmb ji question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a yaru. mbër bu fi gën a yaru nga gën a naw ci yaram. booy ñaa bu Mbàkke. ñaabu Mbacke mooy ñaabu Mbacke mooy magu déranger bu jàmm moo gën a yaru ci làmb moo gën a yaru ci ba man mi nekk ak moom sax daf may jaaxal ci yaram question su booy ñaabu Mbacke laax moo gën a yaru ci mbir booy ñaabu Mbacke ak moom muy kut su Tidiane Ndiaye muy ñëpp daf ñuy yéem sax damay dem ba benn saa dama naa ko yow doo mbër yoroo ji koy mbër ñaabu Mbacke ndax baax laa biir oyof moom laa gis may dugg ci géew war a dem di bëre muy jooy ndax yéene la ndam ndax yéene ma ndam moom laa gis ko xamante dañuy entraîner ba paré may mbeur muy mbeur mu waron dima dir mbag ndax ma ak mom ño tolo même position jurbel mais mu top sama ginaaw dima tarbiyu dañuy teureun ba paré mu yëkëti xaay jox mbeur réral ma tourné léeg-léeg aalu tàng samay neer affaire yoy saga yëngal mu nit mu nit tek ñu paré and man ak mom sa moroomu goor ko xam bu ñu xol sax mo la doole kon ko kenn gënu ko yaru ci aduna ñaa bu mbacké mo gëna yaru ci lamb ji. question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a réew non lool moom mënu ma ko wax ndax xaw ma ko <laughs> mbër bi gën a réew ci làmb ji laa wax kàlla te di nga ma tontu de di nga ma tontu de non boobu xaw ma ko te nga ko jox ko sa bopp waaw mën naa ko jox sama bopp ndax man làmb làmb dama cee yor ñaari couleur des fois damay mel ni xaram yar waaye des fois damay mel ni euh, gaynde si bi da nga naan ki ma a da nga naan ki ma xamoon ak kii bokkul parce que aalu làmb la maanaam ku ñëw fekk la sa sa gaale ak ku ñëw fekk la biir làmb ah, ok làmb dafa laaj réew dooj ba pare mën la ngay def làmb dafa am côté boo xam ne da ngay wane réewande wan dooj mais nag xamal ni ngay wanee réewande lan la réewande du question ko xeex def lii jaagal yi ci làmb dooj ba pare adversaire nga wan ko ni damaa damaa réew damaa pànk ci la gën réew merci réew la gën a réew noonu la demee yaa gën noonu la demee maa gën a réew ci làmb <laughs> question suivante bi question suivante ma génn ci làmb ji ah. mbër lan nga gën a bañ ku la ko def. lu ma gën a bañ ku ma ko def ku ma humilier parce que dama xaw a nekk nit koo xam ne rëyu ma sax mais dama gën sama bopp loo ma mën di jox ci àdduna la te yëgoo ma xamoo may kan wala nga may jéem a am loo may jaay ma bàyyee la ko dem. moo tax mënu ma tarbiyu mënu tarbiyu kenn wala ma topp kenn du ko dung wala may sonn ci yow Mbër c'est comme je l'ai ci ne woon naa la série du yem ci benn épisode yow c'est la deuxième fois may déplacé wu ñëw seet si la la ñaata 4-2 tey kay da ngay sóobe da ngay sóob 2-0 la 2-0 2-0 2-0 la wax bam jeex te santuma sama jabar finalement euh, da ngay mujj rek te benn yoon sant gërëm ñëpp boo ne sa jabar mooy mooy Aram Seck Aram Seck ndaanaan bi xam nga première émission ba première émission ba bu ñu toogee tamit tudd nga nga xam ne mooy def ceeb yu neex yi xam nga moo yor gaale bi gérer ko di def lépp nga fekk meeram ci kër gi tamit soxna maam say njaay mu nekk ku baax yaayam ma toog noonu ñëw ci màggal gi mooy jàpp ci bagage yi sonn ci bi mu ba léegi nekk ci liggéey bi xam nga di nuyu tamit famille ñoom góor gi ñoom waaw yaayam waaw mais parce que kii lañ dëkk Builders xam nga papa Mbacke dëkk mais mi ngi Dakar di nuyu ñoom ñëpp nuyu ñoom góor gi ñoom Ablaay xam nga ñoom Omar ñoom Ibou ak ñoom lay Laay euh, Jurbel Ablaay bu Jurbel xam nga di nuyu ñoom Seex ñoom Waali di nuyu famille am ñëpp di nuyu tamit sama famille sama mag yi ñoom Deela ñoom Nogoy ñoom Soxna xam nga Ndey Saar xam nga di nuyu sama yaay tamit mère Ndey Fall nga xam day sonn ci man bëgg ma trop xam nga yar ma def ci man lépp xam la wax di ko jiyaar di nuyu sama doom bàyyi tamit ñoom bàyyi jiili ñoom aram xam nga ñoom màgget di nuyu ñëpp di nuyu tamit sama doomu nday nga xam ñoom laa am fowandoo ñoom yarandoo ñoom defandoo ñoom lépp te ba nii ñoom lay àndal ci làmb muy Aynu Sarr Tafa Ndiaye Modou Gueye xam nga Leyti Diop ah kulim juum sama gars yi daal max Mahfouz mi nga xam ne sama booy la nekk ak man sama gaale yor sama lépp di ko béggee mooy di ko ziar xam nga sama course Tidiane Ndiaye aw ma fayee moom it di ko ñaanal jàmm borom Pikine di ko kontaane bu baax a baax a baax nekk boo xam ne course bu am expérience coach bo xamni ne coach bu bëgg mbeureum damay préparer combat muy def communication ci bir écrit bay joy barki alcorane ngir bëgg mu am ndam ko papa la ci mam baylaat sek borom hôpital janatu borom croix rouge di yëkkati alalam mo diko def ci man kooku daf doon jaam sama loxo di ma yobu mbapat moo tax ba ni may xek yow su coach ñëw moy tok 16 té bi may def armation muy def armation di compétition championnat Sénégal man ma ko daan teel ay gam ak i tay mom moy taxaw di ma teel sama cumikaay ma koy ziar di ko bége di ko kontaane xam nga di nuyu waa Mbacke Bawol gépp ku ma limul rek dama fàtte waaw mais bëgg naa lim ñu bolom borom daara jolof sama doomu nday boobu su ma waxee ba àggal limu magoo damay nelaw di nuyu waa daar nuyu soxnaa mi xam di leen ziar ñoom ñëpp ak fameem waa lumbal gépp di leen bége noonu la demee sama gars yi jugee gaam bi ñoom Tafatine Pape bu Léon xam nga sama mafia bi ne gaam bi tamit ñoom Lion Noir ñoom Seydou di su ma amee combat booy ño may pare ma doogee ñëw Sénégal building waaw. mu ci yow yi l'émission tire à ñoo ngi woon fii ci Mbacké ñëwoon seet si doomu Mbacké match célibataire marié marié yi ñoo gagné ah yi ñoo duma célibataire yi 2 buts à baa ngi nii seq nañ moom ah, ak moom waxtaan sama waajaa ngi nii ah xamee ko ràññee ko baa leen ko xel bu baax a baax a baax parce que mi ngi jóge ci suuf di daaj jëm ca kaw mi ngi nii nag nee na saison prochaine 2022 2023 yen boy town yen lay waxal neena day ñew dal seen kaw adversaire yen lay waxal neena mi ngi ñew dal seen kaw waajal len bu baax promoteur yi dama di lancer appel ah, en leen ñëw di ko seeti di jox ay combat muy dugg ci lamb ji di beure di woné boppam parce que lepp lu ñu ñuy lacc mbeur mi ci mbeur mi kon def len lolu setti ko jox ko combat mu ñew arène nationale wala Iba Diop beure wat fa woné wat boppam sama gaay li la won fi la won ci Mbacké seen émission avec euh, dom Mbacké ma leen di joxal di daje ba benen yoon ziar ziarat jaa ngeen del sama gaay